koo ma xamee. xam nga wax ko wax mu ko rek. waaw man ma kenn ku dul Amina Amina rek laa xam. Amina man. Amina mel yow salaamun xawlan min rabbi yow nga ne kan ma la yow Amina nga ma yor. waaw Amina lu yow kumba mi nga xam ne ba mu feree si soow lu weer lañ ma ko jox. ma di ko yar ci biir kër gii di solal di létt di defar ba mu baax ma di la ko yar pour yow bu màggee nga takk. tay Kumba dem ba dara da saytu ko dudul mag na tol na ni mi wara tol nga na ngay Amina du ci kër gi. yaay iya. wax na la man xawma kenn ku dul Amina Amina tamit xam kenn ku dul man yaay ngi Kumba wax nga deug li nga wax amna fi la yaro fi la magge fi la defee lepp man ba dama ko dama ko xeexlu dama ko xeex boba nga yakko yow ya, dem ba ya, jamonoy baax. say wajur ño lay tànnal soxna indi ko ci bir keur gi muy daaw di xale bu ndaw nga yar ko ci sa jikko mu xam li ma neex xam li ma nakari xam ya, li ma bëgg xam li ma bañ kumba boo ko takkee sama xol sedd budé lu ma neex ngay wut kumba ngay tak mu daagu ci bir kër bi waye Amina du may dund xana ma dé ga jéggi sama. man dal wax na la. tant maa ngi dund Amina du daagu ci bir kër amina dara nekk ci mom te yag na ta man gor la ta sama kaddu raw na ba ba paré yaay dig affaire mbokk yo ngeen di jël teg fële. yaa ngi nit ki ku mu bëgg rek la wara a sëyal. kumba du fini ne jox mako ma yar ko ba mu ma nga war ko tak di ko dem tak Amina yow Amina lu mu dakalé kumba ak lu mu ko gëné kumba li ñi wut ci yépp yëpp ci mom man dal ya dag ma jaxal man dal wax na leen li ma wax suma jugge fi dana dem sama nijaay waxtan ak ah affaire way ngeen di bàyyi di nga xamne sa nijaay munu res keureum res sama kër fii maa fii takk tubéy ma fi won du seuf ni ma wax nak may am nañ ci dem du da ngay man rek na fi Amina du nga xol ba xam yabaate bay bëgg a dee bo boo rek ñu ne njabootu kanara dañuy jitu nga tok waaye du ci adina man duma jitan jiital di ci topp tay man may jitu njaboot tok waaye baax na nañ ci dem.